Tamsir Bakhoum ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. Elisabeth maa ngi leen di gërëm di leen sant. Mhm. Euh, di leen di gërëm bu baax yow sa bopp ci euh, bés bi nga xamante ne tey tànn nga ko mu nekk bés bi nga xamante ne moom lañ jàngalee jàngalekat yi ci àdduna wërngal këp mhm. wante aussi di gërëm seen rajo réew mi FM. Mhm. ci moom importance bi nga xamante jox na ko njàng ak njàngale ci suñu réew ñu ngi leen di déglu. Mhm, ayca ñu door kook comme ni nga ko waxee bés bi nga xam ne ñoo ngi màggal jàngalekat euh, yu góor ñeeg ñu jigéen ñi ñoom ñëpp euh, tey euh, ñu def taxaw seetlu ci bés bi ngeen seetloo nan bés bi ak it ban solo la màggal ko am. waaw jërëjëf Elisabeth dañ ne rek. bés bi nga xamante ne tey juróomi fan ci weeru octobre deux mille vingt et un jëlaat nañ ko. Mm-hmm. mu nekk bés bi nga xamante ne bu ne dañ koy jël di ko màggale jàngalekat yi muy màggal jàngalekat bu góor wala bu jigéen. Mm-hmm. ci ci adduna bi yëpp. loolu Sénégal bu koy def dañuy jàpp ne rek day màggal benn tradition ren nag yàlla def ñu jël benn thème bëgg a waxtaanee thème bi nga xamante ne dañ ne les enseignants au cœur de la relance de l'éducation maanaam jàngalekat yi. Mm-hmm. réyal li nga xam ne mooy njàng ak njàngale loolu nag suñ koy wax dañuy njëkk a gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo xalaat thème boobu ndaxte wax dëgg yàlla école du lenn lu dul la nga xamante ne euh, askan wi benn pàcc la ci askan wi ndaxte ñi nag ci biir école bi ci askan wi lañ bokk te askan wi ñoo jël ñeent seen ñoom yóbbu leen ci biir école bi ñu wuti fa ñu wuti fa xam-xam wante day baax ñu rappelé ne. loolu yëpp bu amee dafa am ci contexte maanaam dafa am ci jamono jo nga xamante ne ci xarnu bi ñu nekk dafa am lu fi xew ñu koy wax mbasum Covid 19. Mhm. te loolu bi amee dañoo jàpp ne jàngalekat yi ñoom bi mbas mi amee daaw président de la République jëloon décision tëj école bi ñun jël nañ fukki millions ak juróom-ñett yu tegal dal di koy yëkkati ñun jàngalekat yi jox ko nguur gi nee ko dañ koo doolee Sénégalais yi. pour lii nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe xam ne ñu ngi koy dund ci mbir mbas mi wante ñu fàttali ne jàngalekat yi ñoom ñoo duggoon ci kaar yi ci jamono yu métti dem ci àll bi jaf ci ay jafe-jafe yëpp pour dem mën na def de telle sorte njàng bi dana continuer ba ñu mën a def l'examen yi mm-hmm. wante la ci top nag mooy ñu wax ne jamono ji nekk mooy dañoo ci ñëw nag nguur gi rawatina ki nga xamante mooy président de la république le 30 avril ci fan ci weeru avril euh, deux mille dix huit mhm. benn bataaxal ma xam ñoom ak ñun dañoo jubboo woon ne lii nga xam ñun ñu ngi ko doon xeex nguur gi d'accord na ci te dana ci ay ay saafara mhm. wante fi ñuy wax ak yow euh, dañ ñuy wax ne rek duñ ne dara wante nguur ga lam ci waroon def yëpp defuñ ko donc loolu moo tax ñu jàpp ne tey thème bi ñu jël dafa war a nguur gi mu xoolaat moom ñi nga xam ne noonu la jëfee jàngalekat yi mhm. ak ni nga xam ne noonu la jàppee école pour ñu reconsidérer waat école bi def ko école ba nga xamante ne moom mooy jiitu ci politique yi xamante ne nguur gi mu ko koy teg. xam na ne anam yi enseignants yi di jàngale euh, baaxul wala ñuy liggéeyee baaxul ak it lépp lu jëm ci seeni revendication nguur gi da koy soofan. Euh, xam nga li ma wax sànq. dama ci ñëw ci firnde yu leer. Hmm. dama ne ñun. bi nga xamante ne signé nañu nguuru Sénégal te fekk ñu dañoo rencontré njëkk a rencontré président de la république fële këram bi ñu rencontré moom ci boppam dafa jël kàddu wax premier ministre ak ministre de finance ne leen jox naa leen ndigal pour ngeen dem signé ak jàngalekat yi benn protocole d'accord mhm. mais loolu ba mu amee ñun lañ sa waroon def yëpp def nañ ko mais ñu gis ne engagement ba nga xamante ne nguur gi jëloon na ko tey de France dal di xëdëm mais ñu wax ne ñun syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire te man ma yor seen kaddu jàpp nañ ne daaw fépp école nekk ci biir Sénégal ba ca Xoosanto ba ca Sabadola ba ca Ngijilon dem nañ fa waxtaan ak jàngalekat yi xool ñoom seen bopp ci maanaam ni nga xamante noonu la ñuy liggéeyee nan la ñuy liggéeyee suñ koy wax askan wi mooy école ba nga xamante ne ay mbaar ñoom ñoo fa nekk ay sakket ñoom ñoo fa nekk xam ne day da ngay jàngale ba mu yàgg nga gis ay jiit di dugg ci biir école bi nga gis ngelaw li di dugg ci biir école bi nga xam ne loolu amul benn sécurité ci li nga xam ne mooy ndongol daara ak jàngalekat bi te nguur gi moo jëloon décision ne dana saafara li nga xamante ne mooy six mille abri provisoire mooy ñaa mooy euh, juróom benni junni abri provisoire yi xam ne nekkoon ci biir Sénégal wante tey de tey la tey la waalo gën a aay loolu moo tax nag la ñuy wax président de la République leen rek la na jël jàngalekat yi mu tegaat leen seen place bañ a déglu ñi nga xam ne ñu ngi ci wetam naan leen nguur gi lim jox jàngalekat yi dafa bëri déedéet joxul leen lu bëri mais nguur gi dafa waxoon président de la bi ñu ko rencontré dafa wax ne moom de gis na ne ni nga xamante ne noonu ñuy séddalee alal réew mi dafa dafa tëddewul njaaxaanaay mu ne kon joxe naa ndigal pour ñu dem def ci ab njàngat buñ ci jàngatee lañ ciy génnee dañ koy jëfee wante loolu yëpp dafa mel ni président de bi daf ñëw tànk xamlu ba bëgg te wax sax ci mbir moomu moo tax tey nag ñun en tout cas syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal rawatina G7 dootuñ nangu nag nangul nguur gi moom mu toog di ñu tànqamlu te ñun lépp la nga xamante ne moo nekkoon suñ suñu war ci mbir ñun ko boobu sax nañ fi jàngalekat yoo xamante ne nguur gi daf leen a yoral boru formation nangu koo def mais loolu ba ma a jaajëfal fi nga xamante ne moom mooy suñu secrétaire général Sow ndaxte boobu xale yooyu nga xamante ne ay jàngalekat yu xarañ lañ am seen benn diplôme université nekk ña nga xam ne dañoo formé ba pare ñu war a dem def mise en position de stage biñ defee li ñu war a def yëpp nguur gi di leen di tànqamlu ñu ne léegi sax ñoom dañuy xiifal ba nguur gi indi saafara ci loolu demu naam liggéey amul wante Saourou Sène dafa déplacé wu dal di dem ba école normale dal di daje jàngalekat yooyu fekk ñeent ñi ñoom sonn nañ lot bu ñu yóbbu leen hôpital fan mu dal di woo ministère de l' éducation à travers le directeur de la communication pour que suba talaata juróom ñi ñeenti waxtu bu jotee ministre de l' éducation nationale mun a dajeeg xale yooyu pour waxtaan ak ñoom ñu xool lu ñuy saafara li nga xam ne moom mooy seen jafe-jafe boobu. loolu yëpp bu amee li rek lañ ciy wax. Mm. mooy ko nguur gi na jël kem ci lay kattanam pour lii nga xamante ne ak la ak yelleefu jàngalekat yi nguur gi mën cee bay waaram ba régler problème njàng bi ak njàng mi ndaxte benn président américain moo doon wax ne réew yi nga xamante ne ñoom lañ tàggat seen i ndaw rek. ñoom ñoo mën a jongante ak réew yi nga xamante ne ay réew yu développé lañ moo tax len rek lan ñun syndicat autonome du Sénégal la ñuy wax su fekkee ne ñoom dañoo yaakaar ne nag euh, dañoo fàtte ni ñuy xeexee déet dañuy nax seen bopp incha allah école bu ubbee danañ leen woon askan wi ne fàttewul ni ñuy xeexee te su fekkee ne président bi ak gouvernement am ñu indi saafara ci njàngalekat yi dañ leen jël yet ya ak semaine ya nañ doon xeexee ñu àndaat ak ñoom jàmbaloo ñoom pour xamale dootul nangu mukk nag ñoom ñu teg jàngalekat yi nga xamante ne dañ leen relever au second plan. ci formation bi monsieur Bakhoum am na ñenn euh, ñi ne formation enseignant yi dafa des li ni mel sax day feeñ ci qualité njàng mekk njàngale mi ndax yow euh, d'accord nga ci wax boobu. waaw Elisabeth foofu it li ma ciy wax rek dañuy njëkk leeral xam nga bu ñuy wax formation parce ñu bëri dañuy wax ci jàngalekat yi te li ñuy wax maîtrise wuñ ko. parce que boo déggee par exemple ñu naan mise en position de stage déedéet du parce que ki Tamsir bi koy laajtee formé wuñ ko déedéet hmm. dafa ne par exemple man a supposer que man bi may admis école normale dama admis woon avec niveau bac plus deux ñu koy wax KSM yàlla def ma dem université jàngiwaat mathématique ba am licence hmm. loi cent et un trente trois bu fonction publique moom moo ne liggéey kat nguur gu ne bu fekkee ne liggéey bi ngay liggéey am nga ci ay diplôme yu diplôme universitaire yu ëpp wala juróomi ak yu ne nguur gi amel na la nga mën a def concours professionnel pour dem ci hiérarchie supérieure mais ci mbirum jàngale njàngale dañ ne su fekkee ne man jóge woon naa niveau KSM dem bi jàngale ba ci biir may dem université inscrire yàlla def ma diggante di ma amaat beneen diplôme bu bees mu nekk licence wala master nguur gi daf ma amee lu ñu wax mise la jëlee fa ma doon jàngale mu ne ma yow am nga beneen diplôme ba nga xamante ne mën na yokk sa xarañte dama la yóbbu waat école normale ba yow bac deux bi nga defoon léegi da ngay dem def bac plus ñu koy wax kayim wala kayif bu bu ma defee def fa ñaari at ma delluwaat dañ may reclasser dans le corps des professeurs de collège ou bien dans le corps de de l' enseignement secondaire ko ñu wax a PS loolu nag moo tax ñuy wax askan wi ne loolu yëpp su amee ñun dañoo bëgg rek jàngalekat yu gën a xarañ gën a jàngalekat yoo xam ne dañoo gën a motivé nguur gi mu farlu ci li nga xamante moom mooy dossier bi moom mooy les lenteurs administratives ndaxte lenteur administrative yooyu de man dama wax ne man seede naa dem dëkk bu ñuy wax Keboy dem dëkk bu ñuy wax ñu ngi wax Ngijiloon fekk fa ay jàngalekat ñu ne ma sama këyit mën nga ca bureau fonction publique ba tey ji rek am na benn mu ngi fële ci ñooro di ma envoyé message di ma wax ay këyitam yu réer ci fonction publique waaw loolu nag su fekkee ne dañoo recruter ay fonctionnaires yóbbu leen fonction publique ci ay bureau climatisé bi ci naaj bi ñoom ñuy jàng kontek jàng fa jàngoro yoo xamante ne suñ xamul lan la ñi war saafara seen i kayit yi dem muñ ko def nguur gi ak président Macky Sall war nañoo jël seen matuwaay pour que jàngalekat yu tegaat leen seen place wante nag may terminer wax leen. Hmm. dootuñ nangu mukk nit ñi taxaw naan jàngalekat maanaam sacerdoce la xaw ma lu ñuy wax sacerdoce en wolof mais eh, liñ doon wax naan jàngalekat daal da nga koy choisir rek. pour jaamu yàlla ñoom ñoo jàpp ne yi tey dafa mel dañ leen euh, dañ leen a fulaalul dañ leen a dañ leen a dévaloriser noonu laa ko mën a waxee tey lan nga foog ne moo tax ba ñu agsi fii mais li tax ñu agsi fii lenn képp la lan képp la da ngay jël li nga xamante ne mooy fonction publique bi nga xam ne ñun ñëpp lañ nekk muy jàngalekat bi muy militaire bi muy magistrat bi ku ne si ñun kuy liggéeyal nguur ci bu dekkee fonction publique nga nekk agent fonctionnaire wala non agent non fonctionnaire boo ñu jëlee xayma bi ñu lim bi ñu ngi nekk cent trente mille maa ngi ñu ngi nekk euh, fanweeri ju yu manqué maanaam ñaar fukki junne ak juróom cent trente mille ñaar fukki ak juróom liggéeykatu nguur lañ nekk ci liggéeykat yooyu boo jëlee jàngalekat ñu ngi nekk ñaar fukki junne ñu ne la bu fekkee ne da nga jël peyooru nguur gi payoor bi nga nguur gi mu ngi koy jox nguur mu nekk ci téeméer soixante euh, sept cent cinquante milliards maanaam téeméer ak juróom fukki milliards par at jàngalekat yi nga xamante ne boo jëlee loolu ma la wax noonu téeméer boo jël ci liggéeykat yooyu jàngalekat yi ñu ngi nekk juróom-ñaar fukki liggéeykat yu topp juróom-ñaar fukki jàngalekat yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci fonction publique kon ñi ci des ñooy juróom-benn ñooy fanweer yi juróom-ñaar fukki yooyu ñu ngi lekk ci xaalis boobu ma lay wax téeméer boo jël ñu ngi ciy lekk fukk fukk ak fifteen maanaam onze onze pour cent donc loo mën a comprendre loolu nga gis ne ñi ngi xam ne ñoo gën a néew ci fonction publique ñooy gën a consommer li nga xam ne moom mooy alalu réew mi moo tax ñu ne leen le président de la république waxoon bi nga xam ne dajaloo ñoo ñun fële ci këram mun ne ñu moom dafa jàpp ne njàng kenn mënu ko yóbbu ci dernière position te dana commandité système ba nga xamante ne dañ leen def xayma ci li nga xam ne moom la paye jàngal liggéeykat yi te liggéey boobu génn ba président bi xam lan la ñu wax ñun ñu ngi wax ñu jàngalekat yi mais président de la République su fa génnee bëgg na jàmm ci école bi na considéré waat la masse salariale ñu def lu ñuy wax la redistribution des ressources pour ku ne ci ñun mën a gis boppam ci li nga xam ne moom mooy alalu réew mi buñ ko defee en tout cas jàngalekat yi fañ nekkoon danañ ko teg seen tànk hmm. buñ ko deful dañ ci teg suñu tànk waaye danañu xeex hmm. donc la révolution de la fonction enseignante maanaam na ñuy def pour jàngalekat yi ñu gën leen a tegaat seen gëdd ci biir askan wi leen tepp la mooy nañ leen jox seen gëdd seen gëdd nag mooy li nga xamante ne moom mooy seen ak ak seen jëref ko jox hmm. wante nañ fexe ba li nga xamante ne moom mooy liggéeykat yi ñoom ñëpp ñu nguur gi tëddee njaaxaanaay pour ku ne ci ñoom mën a gis boppam ci li nga xamante ne moom mooy alalu réew mi mais may terminer uh-huh. ci la nga xamante naa ko wax en tout cas dootuñ nangu nit ñi toog di ñu wax ne jàngalekat yi lii jàngalekat yi lee déedéet ñun wax dëgg yàlla nekkatuñ doomu bajanu kenn ba ñi nga xamante ne tey ñoo ñoo la gën formation parce que li may wax mën nga cay vérifiable demal ci ministère bu la neex boo fa demee boo ñëwee dans le corps des professeurs mm-hmm. te gën ndaw hiérarchie B2 lay bokk les PCMG B2 ci yeneen service yi rare ngay gis ñi nga xamante ne dañuy bokk hiérarchie A mais jàngalekat yi tout ce qui est professeur d' enseignement secondaire tout ce qui est tout ce qui est ren ñoom ñëpp hiérarchie A un wala lañ bokk. donc de ce point de vue. Mhm. kan wax jàngalekat yi ñu nekk. pour jàngalekat yi ak liggéeykat yëpp pour ci ñoom mën a gis boppam. Mhm. ci li nga xam ne moom mooy alal bi nga xam ne ñoom Tamsir Bakhoum ñu lay jaajëfal bu baax a baax. mais je vous remercie Elisabeth. waaw may fàttali ne yaa nga fare ca euh, SAEMS merci beaucoup.